sen champion bu fi nekk man maa moom ñu boree loolu dina nekk mbégte si man so bii fele di dee isia here Zoz is here min ne fana ya traye ñin ko bee di négocier ya bee taama faafu tata bi kaatu if tata dara ni if tata Dakar rek sulata feŋo feŋ na Dakar ku la nom abuka ko ku diimaata woto fana wo boy wo kambanol fana new century fana business la soto jam ni alon ka ba kootuu ni min fana ye can sɔrɔ e ka fitaje e k'e maa kɔ e k'e sɔpɔri saje i sanji sifa jama bal ke no mm-hmm. a bulo promotion mo be atolo nyoboro to mm-hmm. a fan ka nyoboro kale saya mo promoted o fana bijam ni ma ko tende di block entertainment fana i bijam be ni nge ma ko momo na ye damandin keje ñini ba waralal ni ñoboro nga fa nyami bina jala wol ñama baake baake mm-hmm. to say gambia promoter li takale sponsor min fana mi cda wol fane takele birol fele zos bijana nala mol dolla gamben birol ba daminte balo ba kandere ba training na wol mm. fana mbe ba prepare a okay journalist sol bijanne mm. GRTS fana bijanne radi mo bijanne mm. say be min tutaje soma ni ala son tan salla mo kana to koma ni na nga ke ko kolcholam gambe kolcholam nga mutaye bambang sinim ba gena bambang okay abaraka baki ah, ah, la xamee woon tey de est-ce que da nga bëgg a ngemb <laughs> <laughs> waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen waaw sant ñu fi teew ñëpp rawatina suñu mbokk yi nga xam ne dañu jóge ba Sénégal ñëw Gambia ah, ngir feddali fi ak ñoom ay kóllëre hmm. muy làmb nekk loo xamante ni cosaan la ci suñu biir réew ah, man ni ma ko gisee duñ ne senegal ak Gambie ndax dañ ne Sénégambie la ñuy wax ndax hmm. Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndey ak baay hmm. kon tey dafa mel ni ah, sos tey day bëre ak Garga muy rakkam kon mel na ni ñaari réew yi dara xaajalewu leen kon euh, li ñuy ñaan mooy li nga xamante ni commencé nañ ko ni fondement ko nii mu commencé mm-hmm. yàlla na ci yàlla suñu borom def ndam ba nga xamante ni waxuma sax promoteurs yi nekk Gambie mais promoteurs yi nekk Sénégal sax nañ sign contrat ñëw tëgee ko ci stadium bi fii nii Gambien si yëpp génn mm-hmm. jàppale xam rek nañu génn mais waaw foog mu bëre suba foog mu bëre. Hmm, yaakaar naa waaw maa sos. <laughs> waa jaajëf <laughs> li ma bëgg nag mooy Djinné Mory daan. waaw dama bëgg mbër yi jóge Sénégal bu kenn am ndam dañ ñëpp daanu. <laughs> waaw ah, ah, li mu wax ni léegi am na solo comme ah, loolu laa la bëgg a ñëw laajte si danga ne soos soosaat doo dooraat. te gis nañ ne soosoon nga soosaat mais beneen bi dañ la soosoon eh, ndax waaw léegi da ko paree amaat fii. waaw man xam nga kuy jël combat rek da ñaan yàlla yàlla may la ndam. Mhm. donc pour man incha allah yàlla dina ma may ndam loolu laa ma jox ko bi. parce que loolu laa bëgg quoi gagné ñëw jox président bi loolu daf kon combat bi dina ma jaral lu nekk aussi. Mhm. Euh, di leen wax rek li ma leen waxoon mooy Sénégal bi la rek duñu ay noonu. Mhm. Euh, maa ngi ñaan yàlla ma tamit am ndam ci kawam. Mhm. parce que làmb ji kenn moomu ko. waaw <laughs> mais naa la xamal dara tamit xam nga yow yaa ngi ñëw di wër ci dëkk bi di dem ci rajo yeeg télé yi mais gars yi ñu ngi ci pet. ñu ngi liggéey ñu ngi entraîné gis nga souvent di nga gis loo mës a gis ñu xonjam ngay nelaw bi di wër ci dëkk bi baax waaw jërëjëf Lam Fall ah, ah. moo tax waaw président mooy sama sëriñ <laughs> a fu mu la gamee ah, fu mu ne nii amuñ taal bu bëri pour ñu tàggatoo alaaji Bekaay Mbaye borom Bantamba ah, foog naa ne waratu MC bii de déedéet Bantamba war naa ñëwaat Gambie. non day ñëwaat Gambie mm-hmm. lii dafa neex. Mm-hmm. lii la ñu war di suuxat lii mooy doxal réew yu mag yi. Mm-hmm. Ah, boo gisee Union européenne gisoo ni mel. Amérique ñaata état la. wallaay fexe ba def nii. nan ko continuer lii dafa nanu gërëm bu baax promoteur bi def lii. Ahmed Tidiane ak ñi mu àndal. nan leen gërëm parce que lii dafa am solo xoolal tey jii boo ubbee presse bi Sénégal. ñëpp boo ubbi rek waxu Gambie la ñuy waaw suñu làmb moom seen seen kii bi journaliste bi moom am na fi ak ay ay journée wal fajri ñoom mhm. ñëpp ñu ngi fi mhm. amul kenn koo xam ne manqué nga fi mhm. ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ngir làmb gën a jëm kanam moo tax suñu xol sedd na ci ñoom te ñu yëpp génn ñëw ci stade bi pour ñu xam ni ndax gambien yi bëgg nañu làmb na gambien yi jóg déplacé wu ñëw ci stade bi seetaan bu boobaa làmb bi dina gën a développé jërëjëf El Hadj Bekay euh, comme fu mu nekk nii suñ time jeex na Euh, ñu dalal leen jàmm rek si programme bi euh, comme ni ñu leen ko waxee suba la si Independence Stadium bi fourth match ticket si rek 100 euh, dalasis la pour on covered 300 dalasis pour covered ak VIP 1000 dalasis so képp ki nga xam ne bëgg ngaa jàppa si Noble Crusade bi pour make sure ne bëree bi move nañ ko from the stage dégg nañ la Zos wax bëgg naa bokk si history bi ne bokkoon si ñi nga xam ne ñëw nañ Gambia pour ñu promote li mooy wrestling alhaaji docteur Yahya AJJ Jammeh mu waral na ñu ñëpp ñuy war a dem si stadium bi jàppale li nga xam ne um, history la history in the making ñu si jaajëfal ki nga xam ne mooy Zos ak Ekirim di soos soosaat doo dooraat ak li nga xam ne ñooy suñ Gambien si tamit di tànga jër uh, di si jaajëfal tamit ki nga xam ne mooy Alaaji Bekaay Mbay from DSS TV ju ñëpp xam nañ ko di Bantamba ak Cerno Cangum uh, borom RTS Caxabal jaajën jëf seen seetaan bi ñu daje ëllëg jërëjëf yi ñi Sénégal le 4 mars 2012 lu rëy am stadium Indépendance bu Bakao mu drapeau Cheikh professeur docteur El Yaya Jammeh président bu Gàmbi waajaa ngi noonu bëgg bëgg promoteur yi ñen la Ablo production ak Block entertainment New century ndaxte bu ndakaaru lañ mbër yu mag yi jóge mu di sos sos dóor dóoraat garga mbës mbokk yi képp koo xam ne ànd nga ak sos di nga teew gàmbi war faa dajek ñan xanaa mbëri gàmbi mbër yi nga xamante ni ñoo yëkkati cosaani gàmbi bu kerogee dina am cosaan dina am folklore ana ñan ñooy sponsor yi CDE Sénégal LG Gambia Elite Fitness 2STV Bekay Mbaye kenn du wuute bu nekkee yàlla ñëppay teew ca Gàmbi la ñeenti ci weeru ey mbokkaar maa ngi ñëw Del wang di jai, jonga ma del wang di jai. $100 scratch card or Nopal, you can win your dream home. Gergi, Yai Borom. What? You mean this magnificent house? Yes. It's possible. Just load $100 Sky card or Nopal to win your dream home. Fully equipped furniture. Not only that, but every two weeks you can win beautiful sofas bedroom sets on Opal, cause the more you load, the better your chances are. Kirgi, yay borom. It's only possible with your national GSM provider, Giamcell, yay borom. Ah, asalaamaaleykum mbokk yi ah, ñu ngi leen di nuyu di leen bisimila waaye di leen dalal fii ci Gambia radio and television services ci suñ programme bi ñuy ooyee Ideal Family mu doon programme boo xam ne Gamcel ñoo leen ko sponsor laataa ñuy dugg si programme bi nag comme niñ ko aada woo di def euh, ñuy ñaan jàmm réew mi yal na fi yàlla def jàmm jàmmal ñi ci réew mi waaye jàmmal àdduna bi yépp ndax jàmm ci la lépp xëj bu loolu weesoo ñu ngi sukk di sàkku ñaan si kilifa diine yi kilifa aada yi ak kilifa yi réew mi ah, di leen ñaanal it yal na yàlla guddal seeni fan ndax ñu continuer di ñu ñaanal. Ah, tey nag mbokkay si suñ programme yi Ideal Family ah, ñi ma leen fi amal tey si suñ programme bi tey ah, du ñu ay gan si programme bi kenn si ñoom muy suñu nijaay suñu papa suñu maam di oncle ba jàngoom jàngoom ma bàyyi la nga nuy wante Gambien si bala ñoo dugga si topic bi asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum Africa asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy nuyoo boo xam ne bii ni ku ne war na koo jébbal sa morom ndax ñaan la kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen di ñu ko delloo naan aleykum asalaam wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërëjëf jàngom ah, kii tamit ah, di suma yaay nga xam ne moom tamit gëjoon na si programme bi waaye kuy seetaan programme bi yaakaar naa ne war ngaa xam ah, kan mooy anti awa caam mu doon koo xam ne nag gisoon ngeen ko si promo programme bi saa ne nag def dee ñëw si programme bi caam ma bàyyi la nga nuy wante Gambien si